les invités son là tous les chefs d'État pratiquement sont là kon vraiment am nañu contenté bu wér a wér a wér wér lii rek lañ doon xeex ka yàlla may nañu ko li ci des nag mooy travailler et bien travailler. léegi ci attente yi bokk na ci kàddu yi mu njëkk jël ginnaaw bu ñu ko falee muy wax ci wàllum ger gi ñenn ñi nag li ci bari li ñuy wax mooy mu wàññi dundu geeg yooyu ndax mbir yi dafa xaw a cher. waa loolu moom xam naa ne dina ko dina ko occuper ndaxte nag euh, gis nga boo bokkee ci benn famille bi. Euh, bu la nit ki jooytoo loolu da nga koy xam da nga koy yëg te Bassirou Diomaye le président de la République soo ko dégloo muy wax di nga xam ne am na yëg-yëg ci coono doomu aadama yi te xam naa ne incha allahu bi du yàgg dara dinañ jublu ci dund bi wàññi ko de un de deux dinañu jubluwaat ci defaraat jikko yi ndax dañu commencé nag ndax bale réew mi ndax demb la ñu commencé macha allah kon war ngaa xam ne lépp dina set macha allah ci jikko ci doxalin ak ci dundin incha allah rabbi euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy opposition bu bees bi ñëw dugal seen ci liggéey bi ngeen ànd loo defar Sénégal. non opposition bu bees bi moom xaaruñu leen ci leen lu du toog opposé bàyyi nu nag nun nu doxal ñun ñu nu fal ndaxte dafa naa ne ñoom boo moytu lu dugal seen loxo yàqu ko ndax opposé wu ñu woon kon nañ ñu bàyyi rek ñu doxal l'équipe nouvelle équipe. Euh, de de de jeunes euh, euh, personnes occupé réew mi liggéey réew mi parce que nag réew mi dafa woote changement te opposition bi daanaka ñi yëpp système bi la te ñi anti système la and saa ñu ngi lay nuyu sañse bi rafet na waaye dafa mel ne bu jomaay moo ko dàq de. waaw bis bi bu jomaay moo ko dàq waaw kay waaye balaa maa dugg ci benn offense <laughs> di la nuyu bu baax a baax euh, Ngoné Saliou di nuyu ñi nga xamante ne ñooy suivre euh, sans limite di sunu kër. tey euh, nga ñëw ci prestation lu nouveau président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye lan nga yëg bu mu prêter serment ba pare. waaw mu doon benn instance bu solonel lii ci Sénégal c'est la onzième fois ñu koy def. te juróomi nit rek ñoom ñoo ko jot a def euh, Sénégal bii moo nekkoon douzième élection présidentielle mais prestation serment ñu ngi ko commencé en 1963 alors tey jii nii euh, sénégalais bu ci nekk euh, am nga loo yëg ci sa yaram ci ñetti at yu metti yi nga xamante ne dund nañ ko ci yu doy waar ci ay nit yoo xamante ne am ambition politique yu bëri xew ci tey loolu noonu yëpp ça connaît son épilogue ci prestation wu serment président de la république cinquième président bassiru Diomaye Diakhar fay kii nii euh, prêté serment léegi Ngoone Saliou euh, deux semaines ci ginnaaw mu ngi woon prison kii nii taxaw devant le conseil constitutionnel quelques semaines de cela ñu ngi ko doon topp ci ay euh, tuuma yu doy a muy delluwaat rek ne Sénégal c'est une grande démocratie Sénégal c'est un grand peuple Sénégal dëkk la boo xamante ne jàpp naa ne euh, buñ demee ba euh, jàqare di am euh, xel di teey Sénégal dafay mel ni dafay gisaat le bout du tunnel tey jii nii le conseil constitutionnel bi mu dellu si waatee ci décision bi nga xamante ne defoon na ko ay fan yu néew euh, tey jii nii di date boo xamante ne bu historique parce que en un certain moment donné occupé woon na l' actualité ñëpp di wax le 2 le 2 le mi ngi nii Sénégal génn na ci le 2 ak ndam Sénégal génn na ci le 2 ak siggi Sénégal génn na ci le 2 am euh, un nouveau président de la République en la personne de Bassirou Diomaye Diakhar Faye son excellence bi di sul ci jamono ji mu ñëwee nit ñi perdon espoir rawatina ci lu jëm ci wàllum justice te gis nañu ko déjà amnistie beeg yot a xew waaye fàtte dafay xaw a metti ci xolu sénégalais. waaw euh, yéen bi diis na te dañuy ñaan yàlla yéen bi gën a diis. waaye dañuy ñaan yàlla Bassirou Diomaye Faye attan ko askanu Sénégal attan ko ndax nag euh, effectivement li nga xamante ne moom moo fi xew boobu ba léegi dem ne si wax nañ ko parce que euh, man dama bokkoon ci ñi doon wax ne loi d'amnistie bi dañ ko war a voter man dama bokk ci ñuy wax ne loi d'amnistie bi kenn waru ko sax abrogé waaye mën nañ koo rek modifié parce que tey jii nii kii nga xamante ne moom moo taxawoon devant le conseil constitutionnel euh, toog di prêter serment imaginez woon ñu ne kii dañ koy topp pour euh, atteinte à la sûreté de l'État imaginez ñu ne kii doon prêter serment léegi dañ ko doon topp pour acte de terrorisme imaginez kii di prêter serment tey ñu ne dañ ko doon topp pour acte de manœuvre acte et manœuvre euh, de nature à compromettre la paix la sécurité loolu noonu tey jii nii bu amoon ci Bassirou Diomaye Faye est-ce que njàqare du woon am est que du woon gàkkal deru Sénégal est-ce que du woon tilimal deru Sénégal tey loi d'amnistie boobu moom moo tax kii toppeewuñu ko dara moom mooy lépp loo xamante ne gàlloon na ci loo sax effacé nañ ko loolu c'était très important lii moo taxoon tey ma doon wax naan nañu voté loi d'amnistie bi parce que buñ ko voté wul woon image bu ñaaw lay teg suñu démocratie image bu ñaaw lay teg suñu réew muy kii taxaw prêter serment dañ koy tuumaal lii ma wax lii nii yëpp loolu lañ koy toppee. président euh, de la république bi ñu fi jàppee woon loolu bari lan ngay xaar ci moom mu modifié ko. waaw ankay ñu dindi ko fi nag. Euh, Ngoné Saliou xam nga article boobu fan la jógee mooy crime de lèse majesté. boo dégg maanaam cëslaayu article bi maamu article boobu noonu mooy buur yi nga xamante ne euh, seen wor ma daf leen jaraloon ne am na loolu wax sax mu xaw a euh, jëm kanam da koy dañ lay dañ la ciy topp loolu moom moo doon crime de lèse-majesté loolu noonu nag tey moom moo ñëw ba article 80 kon foog naa ne démocratie ànd ak tuuti ak jërëjëf Ndeye nuyu soxna si nga présenté. Euh, je m'appelle Maimouna Ngom Maimouna Ngom laa dëkk tudd. Euh, di kontaan trop teew ci bés bi parce que tamit euh, yombul ñu toog après plus de 1960 euh, ba léegi ñu doog a changé président ci dans la démocratie vraiment kontaan nañu tey Diomaye Diakhar fay nekk suñu président de la République di ko ñaanal di ñaanal tamit Ousmane Sonko mi nga xam ne lii yëpp moo ko waral yàlla may Sénégal ndam lu rëy. en plus euh, mu nekk loo xam ne euh, non seulement dañuy joxe exemple ci Afrique bi ci Sénégal mais dañuy joxe euh, exemple ci Afrique bi yëpp Afrique bi yëpp jël exemple si ñun xam ne que démocratie am na gagné par les urnes am na soxlawu xuloo soxlawu xeex parce que moom bu vote amee rek dina dina def la différence te vraiment ñëpp kontaan nañu président boo xamante ne nii euh, dafa nekk ndaw 44 ans ci histoire euh, Sénégal tey nga nekk euh, ko nga xamante ni nii peut-être yàlla may na la yenn at yi tey boo amoon kàddu yoo xamante ni da nga koy dénk lan lay doon rawatina déglu nga discours bi nga xamante ne nii njëkk na ko def. li may dénk d'abord waa Sénégal laa koy dénk dama leen di wax ni dama leen di wax ni Bassirou Diomaye ñëpp a ko war jàppale nga nekk opposition nga àndoon nag moom bu fekkee ne fal nañ ko président pour ñëpp la te nag yaakaar bi dafa bëri moom kenn dana jafe mu def lépp mais ku si bu jàppee yaakaar naa ne Sénégal biñ jëm dana nekk Sénégal bu neex moom nag na xam ne fal nañ ko fi mu toll du ñi nga xamoon ne ñoom la doon àndal démb ñoom rek ñoo tax ñu fal ko léegi président la nekk président Sénégal li ma gën a neex ci ci li mu def mooy que démissionné na ci poste yi mu amoon yëpp ci parti bi donc loolu c'est un geste vraiment boo xam ne c'est à saluer te yaakaar ni nag loolu